benn affaire nee nañu ndax si ñuy war a séduire dañu war a am xaalis tout temps wala déet ndax dañu am impact ci seen élan bu ñuy ñëwee ci jigéen. d'accord euh, xaalis. sans boo ah ah euh, loolu amee ma ne c'est important góor ñi. Mhm. comprendre jigéen ñi. ndaxte jigéen dafa nekk xamante ne dafa bëgg. recevoir teranga xeebul teranga mais il faut mu recevoir teranga daf la kay àppal nag di la ko muñal au début du la ko wan teranga doole doole koy def on peut mm. ne dafa bokk ci charme sax Kira waaw dafa bokk ci charme développé waxal am na lool am na lool <laughs> dina waaxu de. <laughs> gis na loolu loolu wane na benn position. Eh. Ah, di position bu baax tamit ndaxte finalité bi euh, foofu lu ñuy jëm mais dañuy waxtaan ak ñi nga xamante ne tey mënuñu ko nangu un ñi. ñuy wax wax bu neexul eh, ci famille di leen di xamal ne duñu matérialiste waruñu xool xaalis amour rek doy na amour kese ma ne leen nag amour dafa laaj ñi matérialiser ko parce que amour dafa nekk sentiment bu xamante ne kenn mënu ko tënk pour na mën ko tënk nag mun ko natt mën ko mesurer il faut que ñu boole ko ak ay teraanga ci teranga nag xaalis moo koy jënd pour na mun ko maye donc xaalis lu muy lijjanti dafa bëri xaalis daf lay may na jënd kado bu gën a tuuti ba kado bi nu mu gënee mag xaalis daf lay may tamit na dimbali femme bi pour mu faj ay soxlaam dem def ay déplacement daf koy permettre tamit euh, vraiment même pour lijjanti sax ay papier il faut de l'argent pour mu mun di déplacer wu donc nu mu gënee tuuti lu tere xaalis il faut na joxe ko loolu su ko ko intégré rek ci euh, mentalité am day tax euh, dana nekk à l'aise suy courtiser jigéen xam ne jigéen ñi duñu benn am ña xamante ne duñu la may temps euh, vraiment na dajale ba am teranga bu am maanaa na doog ko ko eggal li gën a am solo ci jigéen mooy na am attention mooy suy wax na bàyyi xel bu baax ci li mu lay wax na xool fan la soxla nekk na jéem ko ko fajal ndax jigéen plus nga koy fajal ay soxlaam plus mu lay gën a bàyyi xel. jigéen bu am xaalis terewul bëgg na euh, sooy ñëw na jëkk mun apprécier euh, ni mu bindoo. na mën apprécier monde bi mu bokk mhm. suy wax di expliquer dara dañ ko war a ànd dana war a ànd ak moom ci nu muy expliquer mu xam ne yow yéen a bokk horizon mhm. loolu lay jëkk seetlu est-ce que mën ak yow ñoo bokk horizon yow yoroo su dee yoruma man aw droit soo amulee dara soo amulee xaalis yaa ne am yow nga toog doo ko ni Paris laa jógee may ndax yow yow yow yow demoo sax pour demoo fa. <laughs> waaw euh, sooy courtiser ku na xamante ne dafa féex lool dana war a xam ne. dana war a dem wuti xam-xam sa xel dañ koy ubbi. Mm-hmm. ndax jigéen bu xamante ne dafa yor xaalis moom sa côté. intellectuel mooy sa niveau euh, d'ouverture d'esprit mm-hmm. loolu lay jëkk a natt ci yow mm-hmm. donc yow góorgóorlul am connaissance mhm. pour que ne mun di indi ay sujet di débattre ci lu xamante ne day sentir ne tu es cohérent li ngay wax dañ ko teg ci yoon que kii am na lu mu xam te xam-xam laajul na tukki mën na nekk fii di ànd ak ay mag yi am sages muy magu diine muy mag nitu euh, bureaucrate muy euh, un homme également qui voyage beaucoup dañ leen di jege pour di xam lu bëri loolu nay xam dañ koy denc ndax bés booy wuti jigéen ci loolu nay sukkandiku pour di indi indi waxtaan ndax ñoom ni nay développé sa waxtaan cohérence bi na ciy def ci loolu lay sukkandiku pour wax ne ah kii kat Euh, toog ak moom intéressant na. mais Kira aujourd'hui aussi quand séduire une femme moi je pense personnellement que euh, utiliser l'artillerie lourde daf ci faral di baax à mon avis euh, su ma waxee loolu peut-être mooy aujourd'hui moom wax na ko léegi on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche mais il y a des actes yu nga xamante ni nii. pas fondamentalement nga nga jox nit ki xaalis mais y a beaucoup d'actes yu nga xamante ni nii c'est par le biais de l'argent la ñu ko mën a defee boo ko defee dina tax nga gën a gaaw a jot peut-être ci xolu xale bu jigéen exactement mooy li ma à dire que jigéen ñi dañuy faral di matérialiste moo tax ñu dañuy dañuy dañu mais xaalis dafa bokk ci liy dundal vraiment moom laa wax parce que relation soo bëggee soo bëggee yóbbu nit restaurant tey ah, faw il faut na am xaalis sa poche soo bëggee tey euh, résoudre euh, un déplacement nit ki par exemple am xewam war a dem fenn wala dem ci région yi mhm. na war ko dimbalee paas xaalis la laaj donc euh, soo ko bëggee tey jëndal un parfum xaalis la lu bon bon c'est ça commence à combien les parfums de dix mille quinze mille jëm kaw ba soixante <laughs> fekkee ku jigéen ku yorul ku góor ki yorul léegi bu boobaa cas bi nan lay demee parce que bu fekkee man tàmmoon di yóbbu nit resto comme man. waaw kon da ngay guddee keneen na ko resto nag. donc nekkatul mbëggeel nekkatul mbëggeel mbëggeel bu dëgg def leen dànk ndànk te ci bëggeel dafa am ay étape étape yi nag laa nekk di leen di wax. ku amul na ànd ak te xam ne du mu war a jëkk wut mooy xam-xam. soo wutee sa xam-xam xam-xam mooy tax na xam nooy waxee nit dañ koy may yaakaar. soo bëggee dara bëgg na yóbbu ko restaurant dañ koy xamal ne lu dëgg la dama la war a yóbbu restaurant c'est une bonne chose mais dañ koy préparé dama am dama jàpp ci benn affaire may ma ma terminer loolu la tant que dajale sa xaalis su la ko jaralee nga defal ko teraanga boobu du noonu donc benn stratégie mu ngi noonu mais doo tëb tëb rek ne aw ma aw ma parce que soo waxee aw ma aw ma faw kenn du la may sax fooy waxtaanee <laughs> jigéen a lekk. da déglu Pape waaw. dafa benn point boo bëgg a développer par rapport à ça pour man. Mhm. Euh, je me dis qu'on peut pas tout avoir dans vie. des fois on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. et des fois je me ne am na lu dàq xaalis. li dàq xaalis mooy yëg ak faale ak respect. Mhm. et parce que tey maman euh, tey bu ñu doon seet di la may immeuble oto chaque guddi mu dóor la doo de ci sa jàmm. et je pense que loolu euh, dara gënul ko am benn ablaye ba nga xam ne lii des fois ngeen dem tàng naa xam nga ngeen nekk seen jàmm ak sa salaam mu jox la respect bi nga moom ak sa gëdd ci say biir morom je pense que ça vaut tout l'or monde et nit ki nag euh, chaque jour nga gis milliardaire ba nga xam ne saa yu xëyee liggéey parce que mi ngi wuti dara donc nit mënoo am loola loola satisfaire à 100 pour cent chaque fois soo amee yaa ngi bëggaat toujours leneen donc xaalis pour man c'est éphémère donc euh, suñ la dégloo na jigéen xam ne rek euh, bu mu wut toujours l'extrême mais na contenté wu ci am même as tuut loolu laa ko mën a jàppee parce que astut bi il faut que mu am astut bi dafay dimbali ku jigéen ki ndax mu sentir ne ëllëg bés boo amulee mu mun xam ne amoon na jamono teraloon na ko ci lii ndax ndaxte jigéen su nekkee ak moroomam jigéen duñuy compétir ci euh, borom këram wala ki koy courtiser lu muy dépenser ci moom xam nañ yéen entre góor ñi ni leen di Euh, ni koy waxee bis bagg ak seen moroomu góor mooy matériel boo leen di dajale ak seen statut euh, marié ou polygame ci loolu nañ di tiitaroo entre góor jigéen nag lu muy tiitaroo ak moromam mu jigéen mooy sama sama chéri mun may terale nii mun may defal lii mu ni bàyyi xel ci man di ma di ma génn ànd ak man doxantu ñi lekki glace même pour lekki glace il faut na génne xaalis mm-hmm. ah même pour euh, lekk dara il faut na génne xaalis pour nen mun dem ci benn lieu public nen mun fa féexlu dafa laaj tamit xaalis pour le transport donc c'est c'est le minimum des niveaux comme on dit c'est le minimum li ma nekk di joxe nii nekkuma di wax ay offrir teranga yi mag a mage xam nga xam nga <laughs> xam nga way boobu bëgg jaay noos bu ah, <laughs> lu nekk rek <laughs> ma ne Kira uh-huh. il faut aussi souligner que jigéen bëggul régresser c'est-à-dire tool ci benn euh, niveau de vie jékki-jékki sa jëkkër amatul et tout ça ñoom du ñu dee nangu des fois di wàccaat niveau boobu loolu day metti torop si ñoom pour ñu accepter ko En tout cas, la plupart des femmes. La plupart des femmes, effectivement, elles vivent difficilement changement de niveau yi. Mhm. Mais soo leen bëggee ni situation boobu su ñëwee la femme mun ko supporter bu baax il est préférable au moment boo koy courtiser. Mhm. na teral ko foofu. Mhm. ndax jigéen ban koy courtiser na teral ko <laughs> day tax bés boo leen nekkee ci sëy na am difficulté daf lay mun muñal parce que am na au moins lu mu denc ci biir xolam. ci démbam du fàtte. démb mu neexoon voilà. mais la plupart des femmes dañuy jàppale góor ñi nangu leen ànd ak ñoom ci sans dara. ñii am espoir que bés bu ñu leen takkee. góor ki dana góorgóorlu tuuti mais malheureusement. ils ne le font pas mais après la femme elle craque. du ñu wax dëgg genre bu ñu ñëw di la doxaan ñoom du ñu nangoo ak accepter ni que ñoom yoxuñu. mais xam ne maa. bu nga dugg nag parce que am na góor ñoo xam ne comme par mm-hmm. exemple su fekkee damaa war a ñëw ci Jeanne moom xam naa ni sa xaalis bëgg na xaalis mu indi la sama xaalis donc sama xaalis laa lay doxaane dootuma lijjanti pour wax la dëgg benn secret laa leen jox par rapport à ça il faut se marier très gis nga nit soo duggee ci mariage très tôt mu leer ne dara neew fi da ngeen nekk di xooflu xam nga des fois foog na ngeen di laal des fois ngeen laal caakri comme donc kooku lu ko fa fekk bénéfice lay doon adduna du a euh, naqari ba ba romb ndékkee euh, soo ko defee def sa di nga mën a yàlla très tôt bu ko yàlla tudd mariage très tôt ñoo la ñuy wax Abdou Mbaye Ndam ba faale ku bi très tôt bi ñun nga dimbali ñun ñu am amuñu ñun ñi amuñu ñun man amuma mbay amuñu. non ñun amuñu. ñu ngi lancé un appel à monsieur le président Bougane Gueye Dany. <laughs> président. dimbali ñu ñu yor ñun tamit. <laughs> wuti leen de. xale yi bëgg nañu ñu yor ñun yoruñu ñoo ngi nii. Ah mbëggeel daal mën na lu ne ay ca moomu nañu ñëw ànd. dimbali ñu dimbali ñu. jox nga ñu salaire léegi taxal ñu. <laughs> takkal la. jabar man takk naa ba pare léegi. yaa xool nooy def ak man rek. président foo ne rek di ñu seetaan takkal ma. bëgg naa man damay xam na xam na <laughs> suñu président suñu président du takkalaate suñu président dafa bëgg ñuy góorgóorlu ah. ñuy gën a wane suñu ay qualité di gën a gëm lañuy def parce que nee na soo gëmee looy def rek danay am yokkute non nee na soo amee vingt cinq ans boo yoree takkal boo yorul takkal bu yaay bañee takkal papa bañee takkal parce que lu day caaxaan avantage avantage am na ko lu ay caaxaan loolu très mooy parents yi duñu xaar dara dañu ne amagoo leen la femme tamit technique dafay xam ne ay étudiants la ñu wala ay stagiaires amagunu. pour rejoindre un peu li kii di wax. Ah. xam nga kilifa yu bëri ci réew mi fii mhm. euh, man bu ñu ma ko permettre mu na sax wax âge bu buggaan takkee jabar fii nii ci ci ci ci Sénégal bi. ah ils se sont mariés très très très très tôt. man am naa ci ay cas yu dul. man gis na kaay moom la nga wax sama moi j'ai deux frères j'ai deux